point com mbokk yi njaqare ak tiis jeex na ci wàllu jënd ak jaay ak Docpic le marché digital sans fin waaw mën nga ko am ci app store wala play store ci poos ngay am foofu xoolal Maya Diba moom dafa toog këram di làkk piccam téléchargé Docpic di jënd ak jaay lii moom xanaa neex dafa yu welcome TV mbégte la ñu amati saa su di jàkkaarloog yéen fii nga xamante ni tarkal la nee naa la mooy chaîne bu baax bi di welcome TV comme ni ma ko baaxoo di waxee rek dañuy soog door euh, te peccum liir bu neexee da yaa jàpp ca wag yooyu ñuy ñaan nag ngeen di abonné euh, di partager lépp li nga xamante ni ñu ngi koy def ci kër gi mbokk yi ñu amati mbégte comme tous les euh, comme tous les vendredis rek ni ñu koy baaxoo di defee di am ay invités yi nga xamante ni da leen di dalal ci plateau bi ñu wax parole au leader politique di lépp li xamante ni nag dina jëm ci langue politique dañ koy waxtaanee nag dañu am mbégte dalal un jeune euh, bu nga xamante ni ràññee na ko bu baax ci au niveau de la banlieue foofee mu dëkk ca Kër Massar di def liggéey bu am solo di un jeune dynamique nekk ci yoonam moom nga xamante ni mooy monsieur Lamine Diallo tey moom la ñuy dalal di coordonnateur des jeunes foofee ca euh, Kër Massar ci parti Pastef waaye tamit nekk euh, conseil municipal au niveau di département waaye tamit nekk chargé de mission à la présidence mu ndaw bu nga xamante ni mi ngi def yoonam waaye tamit lool foofee Kër Massar ci li muy yëngatu ci politique yéene waxtaanal lepp lu nga xamanteni ni jëm na ci langue politique waye tamit lepp lu nga xamanteni ni jëm na ci programme bi nga xamanteni ni waa euh, tegal nan ko ñi nga xamanteni ni les sénégalais mom dina ko yatal euh, faram fàcce ko bu baaxa baax mbokk yi la ta ñu tambali rek euh, bayiko mu nuyoog suñu mbokku téléspectateur ak internet yu Welcome TV ñu la di yatal waxtal bi Lamine ñi ngi lay bëggé di la char di la dalal suñu plateau merci beaucoup gumbala ma ngi lay nuyu di la char di la jox sa wacc way bu baaxa baax di rafetlu sa belle présentation bi nga def ci man mhm. di nuyu également les internautes yi nga nous sommes ici en direct Welcome to TV mm-hmm. euh, je pense c'est ma première émission ici euh, <laughs> dans votre plateforme mm-hmm. donc di nuit suivre euh, les sympathisants et militants mm-hmm. de la coalition Passif les patriotes Nous sommes tous les responsables du département de Kermossar de nuyu les responsables de la commune de Yeumbeul Sud mhm. mais particulièrement ñi nga xam leen jité muy mhm. la ZPS du département de Kër Massar mhm. en même temps la ZPS communale de Yeumbeul Sud de nuyu mes chers yi nga ay samay collègues lañ ma bokk ñom ben liggéey muy le conseil départemental de Kër Massar en tant qu'élu local en même temps di jaajëfal notre président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci nomination bi nga xam ne defal nañu ko muy chargé de mission à la présidence mu nekk yan bu diis bu rëy ci ñun ñu koy rafet bu baax a baax ci fi ñu bokk muy département de Kër Massar euh, am na solo tamit euh, Lamine bu baax a baax mi ngeen noonu gis ngeen ko muy un jeune dynamique bu nga xamante ni euh, tey président bàyyi na ko xel ba name ko chargé de la mission au niveau de département de Kër Massar mu doon lu am solo waaye yow xale nga mhm. te fi mu nekk di dañ ne politique bi ndaw yi ñoo ko yor xanaa looloo tax euh, maanaam président gën a cëral ndaw yi ci li nga xamante ni def na la ko mu doon chargé de mission. tout à fait comme li nga ko waxee euh, loolu euh, c'est un pacte bi nga xam ne d'abord le président du parti Pastef les patriotes muy président Ousmane Sonko. Mhm. da ko signé muy un pacte social boo xam ne c'est avec la jeunesse. Mhm. Euh, du Sénégal mhm. du mooy la jeunesse de Pastef mhm. parce que saa yu président Ousmane Sonko di wax rek dafay jiital Sénégal mais jiital ndawu Sénégal su ma nee jiital ndawu Sénégal nag ku xam euh, politique nu muy doxee c'est c'est structuré c'est des c'est la démocratie parce bu si nekk mën nga euh, ber sa bopp tuddee ko tur moo tax ñun waa Pastef te président Ousmane Sonko jiite ko jël cër bu rëy jagleel ko la jeunesse ñun ñu bokku ci mhm. tay so xolé vraiment da ngay xamni carrément y a une rupture totale mhm. de ce qui se passait euh, dans des contextes yi nga xamné ne nañ ko ci système politique Sénégal mhm. muy da nga naan gis ay mak yo xamné sont âgés de 60 ans 50 ans ñu nek dans les instances de décision tay tey so xolé lo c'est totalement contraire avec ce qui se passe parce que gis nañ ay ndaw yoo xam ne nommé nañ la ay directeur je mhm. peux nommer notre coordonnateur Ngagne mhm. Demba Touré mhm. qui gère la SOMISEN euh, société des énergies en même temps gis nañ ku mel ni Jean Michel Sène qui gère euh, ANER ANASER ASER ASER autant pour moi mu nekk tey sac bu rëy mhm. mu nek tay un changement euh, euh, euh, de de de paradigme mhm. un changement bo xamné c'est temps attendu ñu yag ko di ko xaar mhm. pour que la jeunesse est dans les instances de décision tay loolu mo indi tay ñu gis ñu ñu nommé des chargés de mission à la présidence mu nek lu rëy rëy di jëloo njukkal sama mbokk chargés de mission yi nga xamné ne ñoo ngi ñoo ngi partout dans les départements donc dañuy japp ne rek que loolu tay changement bu am solo la te dañ ko yag dik ndaw Sénégal mm-hmm. et je pense que ce mm-hmm. changement là dina nek changement bo xamné ne day gën a wëy mm-hmm. ndaw ñi di gis sen bop ci instance de décision mais également li nga xamné tay ci la tollu muy euh, un contexte particulier muy les élections législatives tay so jëlé suñu liste nga xayma ko nga gëssuko ko di nga gis carrément ay ndaw lu tollu ci 15 jeunes yo xamné je peux dire que ils sont euh, investi dans les listes euh, de Pastef dans les listes effectivement mais wax nga am solo ndaw ci langue politique ont gën cee mu mm. mel comme rupture mm. ndaw yi a ci langue politique qui mais euh, tay li nga wax chargé de mission yi nga xamante ni ñi ngi ko ñi ngi ko fal euh, ñenn ci ay waa waa Pastef doon ay ay coordonnateur du département hmm. mais am na ñu tey di commencé di sànni xeer daal ne loolu loolu ngeen doon bañal résime bi fi nekkoon dafa hmm. mel ne da ngeen jël ay ay nit yu nga xamante ni ay militant la woon ci yéen hmm. euh, ñu commencé ñaxtu bañ naka bi liste yi euh, fi mu nekk nii génne am na ñoo xamante ni dañoo frustré booy frustré ngeen jël leen def leen ay chargé de mission Mhm. bon loolu moom du ma ci attardé parce que ne serait-ce pour que li nga xam ne euh, mooy politique parce que en politique mhm. euh, soo xoolee si système démocratique lañ nekk. Mhm. su un système démocratique. il y a une majorité qui gouverne. une minorité qui s'oppose tey loolu la yàlla dogal. moo tax je pense que loolu noonu euh, dafa nekk loo xam ne c'est c'est un système participatif boo xam tay le président de la république mi nga xamné constitution moko may sur l'article 49 de la constitution mom moy nommer les emplois civils et militaires donc il a le droit pleinement mu xol ku ko neex mu nommé ko par rapport à ses prérogatives. mais yéen da ngeen ne amul xaalis yéen yéen ko wax. fi mu mhm. nekk nii mi le président euh, du parti Pastef le premier ministre Ousmane Sonko néna na réew mi dafa ruiné. Mhm. ruiné ba pare ngeen di sal euh, fal ay chargés de mission yo xamante ni nee na sax xamuñu seen liggéey. ah loolu wax bu yàqu parce que euh, ku jang xam ni état di doxé xam organigramme type de l'administration, direction bo dem wala cabinet bo dem ni fek chargé de mission. et chargé de mission lan moy liggéeyam. chargé de mission euh, je pense que c'est ko banaliser mais c'est quelque chose qui est très important parce que ne serait-ce que manam président ak lepp li nga xam da koo am ci gaay ci ay bànqaas lu mu rëyee rëy rëy rëy ak ni mu je pense que sa émissions, am na bu rôle bu am le président parce que je peux dire que il peut être le conseil du président de la république sur certaines choses. mais président y a un conseil au niveau du président. effectivement mais ah. Doyle, euh, pourquoi Doyle parce que si qui gars yi banaliser manipuler si vous nga xayma nga gis fi Macky y avait plus de 300 charges d'émission. de président de la République, ne serait-ce pour Mouné, il va désengorger, euh, euh, rationaliser les dépenses euh, de l'État. Mouné de quoi 45. Donc, il y a une rupture, il y a un changement par rapport à ça. Imaginez, nous sommes sur 300 salles de démission. Nous disons que 300, il nous 45. Mais, comme on est, nga ni non ñoo fi un nangam fait, fi waxoon mais loolu tay nous avons ko nangul changement bi nga rationalisation bi nga xam ne woote na ko parce que imagine lu juge si trois cent ba jëm ci quarante cinq je pense que loolu noonu war nañ ko mën a doyloo xam ne ni carrément charge état fu mu toll ak liggéey bi nga xam ne président de la république war na ko mën a def au moins pour des désengorger li nga xam ne yor na ko sur ses sur ses mais je pense que mën na ko euh, tasaare ba ñenn ndaw ñi nga xam ne tey euh, mën nañ am euh, rôle boo xam ne mënuñ ko jouer dimbalee ko ko par ak mission yi nga soit dans les départements soit à l'extérieur du pays soit des choses yoo xam peut-être ça va dans l'ordre social ou bien l'ordre économique su ko defee ñu mel noonu ñu nous koo jagleel ñu yombal ko liggéey bi moo li nga xam ne jël nañ ko ci ci aspect wax euh, que